makaarimul axlaaxi mbakke anu yem ma jiima kañ te bàkk seex abdul karim makaarimul axlaaxi mbakke anu yem ma jiima kañ te bàkk seex abdul karim makaarimul axlaaxi mbakkaanu yem doomi sëriñ la dib sëriñ bu yaarame rafet ji ko waral mu bare ay xame doomi sëriñ la dib sëriñ bu yaarame rafet ji ko waral mu bari ay xame murit yaag tiijaan ya ñaŋ fay dajaloo ñam yey jalaañoo day dagan tey tegaloo Cheikh Abdul Karim borom makaarimal axlaax murit yaag tiijaan ya ñaŋ fay dajaloo ñam yey jëlaañoo day dagan tey tegaloo dongom ya lool di leeral seen kanam bëkkun fataaju ñam du ko xam dongoom ya lool di leeral seen kanam bëkkun fataaju ñam du ko xam Cheikh Abdoul Karim Serigne Abdoul Karim def leen nii ñu màggal borom makaarima lax-laax doy loona Cheikh Bamba ba toog ca dëkk ba di am teraanga teddu lool ngir barke ba doy loona Cheikh Bamba ba toog ci dëkk ba di am teraanga te lool ngir barke ba rafet ji ko waral mu doon kuy tërbiya ku kenn bëggul mu jël defar ca daara ya borom makaarima laxlaax rafet ji ko waral mu doon kuy tërbiya ku kenn bëggul mu jël defar ca daara ya ku man na def kenn aayewul gindi kuréer takkal ko soxna ak mu jëm xolam baleer ku man na def kenn aayewul gindi kuréer takkal ko soxna ak mu jëm xolam baleer muy waaja daara aja daa yor paaka mbaa mu yor yatam baatin ba cëb këlam ca rey laxas xelam muy waaja daa yor paaka mbaa mu yor yatam baatin ba cëb këlam ca lay raxas xelam muy waaja daa yor paaka yor paaka mbaa mu yor yatam baatin ba cëb këlam ca lay raxas xelam ne leen ko jaajëf Cheikh Abdou Karim ne ko jaajëf te ni ko jaaraama waay doomi Serigne Fallilou Mbakke mat na waay dimul dikkul te waaju jaaxle seetu ko saabu fa bàyyi ko gindee ko sant ko Serigne Abdul Karim demul dikul demul dikul te waaju jaaxle seeti ko saabu fa bàyyi ko gindee sant ko day wër ci àll bi joxe teraangaam boole ñi dundal te deful daraam di wër ci àll bi joxe teraangaam boole ñami dundal te kenn deful daraam sëriñ Abdul Karim ku dem këram ba gis na muy dafay ganam waxam ja day rafet te day dëppoog jëfam day wuufe ngir woyof lu baax da ko ma ne yërmaane jim am ci mbindeef yi lay wane Abdul Karim day ngir woyof lu baax da ko mane yërmande jim am ci mbindeef yi lay wane Abdul Karim day ngir woyof lu baax da ko mane yërmande jim am ci mbindeef yi lay wane teggin yab mat na ngor mat ak jom jaa te am na kersa way na baay ja doom ja teggin ya mat na ngor ga mat ak jom jaa te am na kersa way na baay ja doom ja yiwe na yeewu na yeyoo na kañ xanaa jubooki mbokkam law la cet xam adduna yiwe na yeewu na yeyoo kañ xanaa jubooki mbokkam law la cet xam adduna Cheikh Abdul Karim woyof na te